Hallå Ubbe. déggal. Thium. dëgg du neex xale 11 nga laal. Ah, sama lépp sama kenn du moom. bëgg lu ma neex. musuma jàmmat dara mu dëgg ba ci Sëriñ Tuubaa te du ma ne guléet. mais ni ko waxee def na ko dama jëli ma dem jëli. ndeysaan wër na yàlla yàlla xale ubbi. déggal. Thium. dëgg du neex xale onze nga kenn du moom. bëgg lu ma neex. musuma jàmmat dara mu dëgg ba ci Sëriñ Tuubaa te du ma ne mais ni ko waxee def na ko dama jëli ma dem jëli. ndeysaan wóor na yàlla yàlla